مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك بوكي دكار اكت نيو لا نيو كين كو نيك سي انتلوم اك سانتام دي لين زياره دي لين دوكل واي دي لين تاتغال في تي كبار شيخ محمود هادي ابراهيم نياس muy doom ci cheikh lislaam Hadj Ibrahima Niass di juróom benni doomam juróom benni di ki nga xam ne moo doon taxawu gàmmu gi gannaaw baay mm, taxawu na ko sax ci ay barab ju fasanti ko euh, ci ndigali baay ci kanami jumaa ji ak feneen ak feneen ak ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal gannaawam El Hadj Abdoulaye jox ko ndigal di xalifaam muy gàmmu ba 2005. moo doon gàmmu gàmmu Medina bi ba bés ni ki tey euh, yàlla def na wakil daad moo yor yëf yi ñu ngi ñaan yàlla yàlla guddal fanam muy Cheikh Mahamadal Min Ibrahima Niass na yàlla defal ko tawfiq ak taysir ci gàmmu gi nga xam ne moom la dëgmal wala gàmmuwaat gi euh, di rafetlu lool taxawaay Dakar Act ci gàmmu gi di rafetlu seen ñëw ak seeni liggéey bu rafet seen liggéey bu sell moom la Baye njëkk a jox ndigal pour mu def émission rajo ci année cinquante et tontu bataaxal Sénégal Cheikh Mouhamed Hadi moo ko njëkk a def ci rajo yi euh, bokk na ci doomi Baye ñuy njëkk ñu njëkk a ràññee ci Sénégal ak ci biti Sénégal mooy ki nga xam ne musta tardé gàmm mooy ki nga xam ne 1963 la njëkk gàmmu fii ci buntu kër Yaane fi Baye ci daayira bi nga xam ne daa njabooti baay gi ñoo ko organisé woon ñëw ci bàyyi na ko dañoo bëgg a gàmm mu ne ku la ñu gàmmal ñu ne ko sëñ Hady mu ne leen ndax dafa mën a gàmm leen ma ko ñu oo sëñ Hady ñëw mu ne ko na ngaa mën gàmm mu ne ko boo ma loolu la ko tegal bu ko neexoon bu ko dafa dégg bàyyi nag ku déggoon bàyyi la bu ko neexoon na ko ah maa kanaa ma jéem de wala nga ñaanal waaye daf ko wax na ko boo ma ñaanalee ma jéem bàyyi ñaanal ko na ko demal nga gàmm fépp fu la ooyatee gàmm nanga dem gàmm bàyyi ndongo ñang taalibeem eh, bu àddoon ànd ak moom mun a keroog la déggee ci waxi baay bi ne sëñ aadi dina gàmmu fu nekk moo tax gàmmu na fu nekk gàmmu na Europe gàmmu na Amérique ci mboolem continent yi gàmmu na ci biir Sénégal fépp gàmmu na ci Gambia fu nekk rek sëñ aadi taxaw na fa tagg yonent bi sallallahu alayhi wa eh, mu niru woon nag bàyyi lool ci kàddu sëñ aadi buy gàmmu na yaakaar na bàyyi mooy gàmmu fekkee ne gisoo jëmu ci fekk yow na ngeen déglu keset yi ñëpp xam ne ko taalibe képp kuy taalibaay xam na gàmmu sa ñaari ak gàmmu waay benn la coppi la fu bàyyi di reetaane dina reetaan fi ba fi ba fi bàyyi di sax dina jéem a saqat bàyyi niru ko ci lu bari niru ko ci dox niru nuru ko ci bind bind sa ñaari sax na ngay gis ne dafay boo xoolee bind sa ñaari ak bind bàyyi bind yi dañoo niroo nirunu ko ci tabe nirunu ko tamit ci bëgg yonent bi sallallahu sa ñaari mooy ki nga xam ne li bàyyi ñaanoon ci njabootam ak doomam yi ak taalibe mi feeñ na ci moom Baye dafa waxoon ne te sama rijaalun bi xadimin wa innanii usaajilhum laa ansani usaabiquhum usaabiquhum maa ushtu fii ka woon yamut usaajilhum far'i wa innii saabiqu wa fii ka yusaabiqu mu ne ñu bëri dina rawanteeg man Baye ci bëgg yonent bi sallallaahu alayhi wa maa ngi dund waaye man du ma dëñ mukk di rawanteeg ñoom ci loolu te maay ko jiit ci course bi mu ne bu ma dee sax dinaa bàyyi sama njiit samay taalibe samay doom ñu rawante ci loola te man maa ko jiitu man Baye laa sekk na nag Cheikh Mouhamadou Hadi bokkoon na ci ñu doon rawante ci course woowu te bokkoon na ci ñu jiitu gannaaw Baye. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صل وسلم دائما ابدا على